ñaata ñaata euh, millions of dollars yëpp a yaaxu waaye ñu baax rek euh, jàppale ñu ba tey ñu nekk fi nga xam ne nag mooy euh, Red Cross building bi dama leen koy wax rek jàppale leen Gambian Talents ñu dem si kanam moo taxit rek musti bëgguñ kenn ku ñu tënka moo tax taxawul fi parti A taxawuleen fi parti B taxawuleen fi parti C saay bu ñu amee interviews ak ñi nga xam ne nag ñooy borom na ba tànkay mbéte yi suñu ay politiciens saay bu ñu fi ñëwee lépp loo xam ne askan baa leen koo laaj dañ leen koy wax dune naa dañuy neexal comme noo ko waxee rek nit nga ñëw rek ne di ko jay di ko wax lu dul dëgga askan bi di la wax ne ne yow mi yaa sàcc a nga bañ wax ñi di ne yaa sàcc yow mi di xaal boobu ngay promote ko du ajendaam di ko jox dat atmosphère ku mu ñëw ne ok sàcc ma xaalis bi muy wax loo xam ne ah, demewut noonu ñun dañ laa xool accountable moo tax it bëgguñ kenn mu tënka ñu su la nit joxee dara daf laa wax dama bëgg nga xoolee fii ma de nga defee nii moo tax ñun Gambian Talents si yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan si yéen leen depend ngeen jàppale ñu bàyyi subscribe si suñu Facebook page bi every month five dollar rek lañ leen laajte dem nañ si li nga xam ne nag mooy green box boobu noonu di ngeen ko fa def gis mu def lu ma ni love sign every month ngeen donate soo la mënutee def loolu noonu rek maa ngi ñu bëgg a rek euh, ñun ñoo gën a jàppale APS international nag sa xaalis bu su jeexee jokkool ak gars yi rek su ko defee rek ñu yokkal la li nga xam ne mooy xaalis dañuy def nduga service mm. xit na kër papa gars yi dinañ ñuy saaku maalo suma maas yi dem naa ne saaku maalo 2000 la uh, saaku maalo 3000 la bidon yi diwlin uh, li nga xam ne mooy pompiteer laaj li ñëw yëpp EPS dina la ko mënoon a yóbbul la ko ba si bunti kër ki nga bëgga si ko ku nekkee carton bi koy fii biir Banjul Komboy yëpp EPS na fa mu jàppale la si loolu mus di kanaa moom bari na loolu yëpp tamit sant yàlla lu bari parce que nit ñaa ngi nekk mën a def fii ba pare a mën finance tamit ñi de have their strength and their weaknesses so am na ñoo xam ne soo leen yónnee tey five thousand xëy na ko war a mën a dugal fu ko war a dugal mm-hmm. balaa moo realize xaalis bi dem na te bill si kër gi fayal mm-hmm. so pour nga am that service boo xam ne nit ki dina mën a ñëw di